alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi nga xamante ne yéenay bàyyi xel seen télévision Galaxy TV su ngeen gisee jumaa ju tedd ji suñu ginnaaw ngeen xam ne si nañ si dëkk bu sell bi di dëkkub seexul Khadim ni leen ko diggee woon nag noonu rek incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen waaye nag ànd ko ak yéen ci benn fanu safar ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar danañ leen waneel mbooleem loo xamante nii dafa jëm ci màggal gi waaye nag defal leen ci ay plateau spécial yoo xamante ne incha allahu rabbi day wane li nga xamante ne nii moom mooy njàngaleb sëriñ bi. bu ñu xëyee 10 heures dina leen indil plateau 17 heures ak 21 heures ñu indi leen beneen palato lépp nag jëm ci njàngaleb sëriñ bi cheikhul xadim euh, ñu ànd si nag ak suñu jigéen soxna mama rasul kon lan ngay wax mbokk yi nga xamante ne ñooy bàyyi xel seen télévision Galaxy TV. soxna mama jërëjëf Baye chers téléspectateurs Galaxy TV ginnaw buñ leen ku nekk ci ak santam comme ni ngeen ko gisee comme ni ko Baye waxee ci Touba bo leen gisee jumaa ju tedd suñu ginnaaw mm-hmm. ngeen mën a xam ne ci Touba ñun waa Galaxy TV comme niñ ko waxee woon dañuy ak avant jour ak après màggal lépp loo xamante ne nii xew ci biir Touba dinañ ko à travers ay ñuy amal bés bu jot ba gi mais également émission ay plateau spécial yoo xamante ne dinañ ko amal chaque jour ba fii ak màggal gi di jeex donc chers téléspectateurs restez connectés ici à Galaxy TV parce que fi les lepp di xewé kon niko soxna ci waxé rek kon mbokk yi non rek lañ ko fas and ak ak euh télévision Galaxy TV kon ñi leen di wax mbokk yi fi la lepp di xewé